waaw fii ñu nekk nag mbokk yi mën naa wax ne allahu akbar kabira ñi ngeen gis ñuy jàkkaar lool sama cameraman jël leen bu baax a baax gis ngeen sëñ bi toog mi ngi noonu gis nga fii doo dégg benn bruit bi toog ñëpp ay mbuuma leen di jàng sëñ bi di leen jàngal moom tamit am mbuuma la allahu akbar kabira waaw gis nga kee bind ci palaat bi ni muy jàng moom day tari ne maa allahu akbar moom day tari gis nga ko mi ngi ne di tari bu tari day bind nii subhanallah macha allah gis nga kii day bind mathalan dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim macha allah gis nga ko day nii subhanallah Habib salaamaaleykum subhaanallah mhm, mhm, mhm. turam lay bind dañ ko laaj nu mu tudd bismillah mbindam mi subhaanallah Habib Diop nee na Habib Diop la tudd ibnu Serigne Hamdi Diop macha allah kañ la moo ko alquran wala loolu moom. Hmm? 2013 mu ne la moo ko alquran mbokk gis nga macha allah lii de wax dëgg yàlla kenn mënu ko misaal. laa ilaha moom mi mokkal alxuraanu karim beq ko ay yooni yoon bind ko te gis nga ndeysaan kii ñu gis da doon tari xale yi yëpp moom moo bind nekk ci aliwa yi aliwa li ci nekk yëpp moo ko bind moom mi toog macha allah di wax ne Touba gi nii fii mooy Touba Touba waaw Serigne Touba moom macha allah la mu doon wax ci alxuraanu karim waaw weddi gis bokk ci daal olof dana ne tëngalo du teew ñuy natal lii nañ xool ba xam du mën a amul waaye nag nañ xool ba xam fees koy di gis yaakaar naa du bari macha allah. bismillahi rahmani rahim. allah kon mbokk gis ngeen image image yooyu ñu leen wan ci biir daara ji mu nekk liggéey boo xam liggéey bu am solo la gis ngeen gone yi moo macha allah gis ngeen ñiy beqi ak seen njàng xam-xam gis ngeen fi mu gis ngeen tamit soxna yi macha allah gis ngeen tamit suñu mbokk moom nga xam ne mooy mbuma bi gis ngeen ni muy jàngalee gone yi ni toog ak gis ngeen ki nga xam ne mooy tari gis ngeen ni ñu ko laajee turam noo tudd mu bindal ñu Habibullah ibnu ko bindee macha allah waaw te loolu daal wax dëgg yàlla lu yéeme la loolu moom wax dëgg yàlla lu jara kii la mbokk yi nga xam ne ñoo koy seetandal xam naa la bu ñu paree moom Rafah TV danañ ci def liggéey bu am solo boo xam ne fexe ba fu mbokk moo xam ne am àgg na fii te mënut a wax mënut a dégg ñu fexe ba mu xam daara ji incha allah ñu fexe ba and ci njaboot gi sëñ am di mbokk mi nga xam ne moom lañ wax Habibullah muy sa doom coono yi nga jaaf kii jaar ak moom ba àgg fii tey mu bind alxuraanu karim nga xam ne nee nañ beqi na ko ay yoon yoon boole ci bind ci kaamil moom moom moom istilaahaat bi nga jëfandikoo ba mu xam ne xarafu xaa mooy xarafu xaa ba nga xam ne tey ji bi ñu koy laaj turam mu mën a bind noo noo tudd mu ne Habibullahi gu leer naa ñi la bind daal def ibnu Hamdi Diop laaj bu am solo waaye li ma la wax léegi dama ne. ah subhanallah dama wax ne man gis naa ne. Mhm. Eh, nii seen bopp dañoo war a yokk seen itte. Mhm. ndax suñu borom ay kii maanaam dafa bari. macha allah. Eh, ay mayam it bari. Mhm. doomu aadama it li mu lool ndax eh, li may tënk lool gis nga ay Habib mi ba yàlla dogaloon. daa ji tënku wala ma am ak jotom. tàmbale woon naa liggéey ci moom ji maanaam mu ñu jàkkaarloo nii rek. may wax. pour maanaam samay tuuti ñi mu yëngatu rek mu mën cee xamee li wax. Hmm. man tàmbali naa liggéey moom ci loolu loo xam ne xam naa bu ma ko noonu dara. dara <laughs> sotti <laughs> waaw man euh, fi nga jaar ak moom kay leneen loo ci def. macha allah sama jot hmm. nga même kii baa naa wax. Hmm. yi bu ko jàngalu du ko xam. ko xam wér na. maanaam fi ne boo doon liir nii rek. Eh, te te ñi ñu lii mooy xaa lii mooy lii mooy eh, yi ñu mën ko teqaleel. ma xaar yi nga mën koo xam. maam bu ñu la ko jàngalu taxante la ko du du du sotti. du ko xam wér na tabaar moom mi nga xam ne mënut a wax itam. Mhm. gannaaw moom day xool ak bëtam rek. Mhm. Eh, nga teg ci xaraf yi. Eh, araf yi boo xisee xàmmee araf yi rek. Mhm. Eh, jeex na maam moom te ñoom seen xam dafa dafay xaw a wuutee sax ki wax. macha allah ndax lépp lu ñu xam ñoom xam googu day des ñoom day day yeex mu. day yeex yeex dañ tabaarakallah ne ci ñi topp kaamil yi bind daay ji la bokk waaye ci ñi gën a ñëw la bokk ndax daanaka moom li muy xam genn xam lay doon. subhanallah ndax ah, moom bu ko xëlee capté rek fi mu ne yéen ñi toog nii fi mu ku ci nekk bu ma waxee sax Basiru Mbay mm-hmm. la tudd kii Mor mm-hmm. mm-hmm. benn yoon nii fi ne fu ngeen dajeeti bu jeex na mu bind sa tudd allahu akbar loolu bu doon man miy wax du ma ko mën a a jàppe noonu mm. kon dañuy moom eh, ak ak dafa yaatu. macha allah nga xam ne kaamil yi ñuy bind ci daara ji moom bokk na ci ñi nga xam ne moom moo ci gën a xereñ. bu nga xam ne bii ñu bii ñu tim ni moom moo ko bindal boppam ci loxo boppam te mooy ñaareelu kaamil bu njëkk ba yàlla dafa dogal bi mu ko tàmbalee. Mhm. sëñ Muntaxa dafa ñëwoon ci suñ suñ sama benn kër sama benn mag. waaw jumaa ju ñu tabaxoon mu doon ko seet mhm. eh, ba mu ma jox ko addiye kaamil bi alxuraan bu ñu bind ci loxo ba noppi nag wan ko eh, ne ko Habib mii sama doomam day bind kaamil. Mhm. Eh, moo xam ne booba day doog a tàmbali booba kaamil bi mos kuréel toll. ba ah. ndeysaan suñ def lool mu yéem ko lool. Mhm. ñu ba mu yàgg bi mu dee bay bëgg a dem mu wakk loolu suñu muntaxaa mu ne mooy dem nga mame ci eh, mbindu ayib moom lu man ñetti kayit ma yóbbaale ko ndeysaan tabarakallah waaye booba ñetti si la mu jëroon a lépp dama ko def nga jox benn yoon jox ko macha allah mu <coughs> ba mu ko bindee ba mu àgg mm. eh, la waaye dama ko fekk njëriñam jébal ko ko macha allah waaw ah, ba léegi mu ne ci mi ngi maktab xam ne da ko jox la mu a bind mu tàmbaliwaat te ba mu bindee kaay ba noppi nga wëlbatiwaat nga joxaat ko sëñ bi macha allah tabarakallah macha allah loolu lépp ak mbay macha allah si yam xam naa waxtu